parce que ñun waa diaspora bi dañoo sonn lool di liggéey guddi ak bëccëg suba ak ngoon dajale ba am suñu ñetti pepp dem tabax Sénégal tabax Kër Massar pour dugal suñu waa kër dans de bonnes condition voilà léegi nag ndox mi bëgg lekk suñuy kër suñu waa kër bu ñuy togg ca terrasse bi la ñuy dem di teew di toggi loolu c'est pas du tout normal nañu defaraat assainissement yi defaraat. Euh, kii caniveau yi nga xam ne ndox mi bu ñëwee dina mën a dem directement nit ñi sonn nañu déjà Sénégal métti na métti boo xam ne ak feebar bi ñëw bokk ci nit ñi mënuñu dem mënuñu dem di lijjanti li seen njabooti di lekk ba pare bëgg ñëwati nekk ci ndox mi doo xam nooy toggee pour jox seen njaboot loolu métti na trop voilà ñuy ñaan nag gouvernement Sénégal nag comme que yéen yéen ñu fa nekkal ñun ñu ngi fi guddeeg bëccëg suba ngoon di daw mënoon nañ dem tabax yi beneen dëkk wala ñu dem feneen tukku mais suñu waakal ñoo nekk Sénégal pour ñu teg leen ci daan de bonnes conditions taxawal ñu ci ngir yàlla yonent ba ci ci ci ci ci inondation yi mu jóge fa voilà te ne woon nañu fi ba at dootuñu waxati waxu inondation te fu mu nekk ñu ngi waxat inondation te fii ak ñaari at ak ñetti at ak juróomi at bëggatuñu ay inondation inondation Sénégal doomu la yem xam nañu am na dëkk yoo xam ne am na inondation mais ñu ngi def moyen yoo xam ne ñu jàppale peuple bi bu inondation amee ñu wut fu ñu leen di teg di leen jàppale ci dundu lekk naan yóbbu leen fu ñu dëkk ba ñuy salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa diaspora France maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp voilà di massawu ñi nga xam ne bokk nañ ci inondation yi nga xam ne moo xew Kër Massar voilà ñun di ko méttit lu torop nag di def suñu cri de cœur parce que daaw waxoon nañ ñu ne inondation dootul amati donc tere na ngi nii mu gën a nekkati piirati ñuy wax suñu gouvernement ne ko moom moo ñu digoon ne dina def ay canalisation donc na ko defar le plus rapidement possible et sans délai parce que waa diaspora bi sonn nañu liggéey bay bëgg a dee jël sa li nga yor dem jëndee ko kër pour teg say parents dans de bonnes conditions